ñaareelu xaaj bi ci ñaari xaaj yi sool toog damas ak taalibe yi ca saasa mu yégle ci jàngu ya ne mooy doomu yàlla jëf ya saar juróom-ñeent aaye ñaar fukk nit ñu waaru ndax sol mi doon fitnaal taalibe yi tey mu ngi seedeel yéesu ganaaw loolu yawut yi di fexe nu ñu reyee sool taalibe yi dimbali ko ba mu raw jóge damas amoon na ay wattukat yu nekkoon ci bunt dëkk ba dëkk ba ay mira ko wëroon ngir aar ko ñu dugal sool ci ab pañe yor ko mu jàll miiru dëkk ba ab diir gannaaw ga sool dellu yerusalem fekki taalibe yi bi ñu ko gisee ñu ragal ko barnabaas wax leen ne yeesu moo feeñu sool mu wax leen ne léegi sol taalibe yéesu la jàngalekatu yawut bi gënoon a mag ci jamono yooyu moo jàngal sol téere kóllëre gu njëkk gi sol ci boppam sax jàngale na téere kóllëre gu njëkk gi léegi nag xam na te mu ngi jàngale naka la yeesu matale li yonent yi wax ci mbirum musalkat bi sool tàmbale di waare ci biir yerusalem ànd ak fit muy wax ak di werante ak yawut yiy làkk grek yawut yiy làkk grek di jéem a rey sool noonu taalibe yi yebal sool dëkku tars bi loolu weesoo taalibe yi nekk ci jàmm mbooloom ñi gëm law ci yude ci galile ak ci samari xel mu sell mi dooleel mbooloo mi ñu bare fekk si leen léegi ma leen ñeent lan la sol def ganaaw bi mu delloo di gis jàngal na yawut yi ci damas ci mbirum yéesu won na leen ay firnde ci téere kolere gu njëkk gi ne yéesu mooy doomu yàlla juróom naka la sol rëccee ci damas taalibe yi dañu ko dugal ci pañe jàllee ko miir ba juróom benn ndax nekk yerusalem wóoroon na ci sol déedéet foofu itam yawut yi jéem nañu ko rey taalibe yi dimbali nañu ko mu rëcc dem tars ga mu dëkk juróom ñaar lan la tuubu sool indi ci mbooloom ñi gëmoon. toog nañu ab diir te kenn firnaalatu leen. xam-xamu mbooloom ñi gëm yokk woon na seen gëm di gën a dëgër ni ñuy jàngee kàddu yàlla gi. mbooloom ñi gëm weeru woon nañu ci borom bi te di ko topp. xel mu sell mi di dimbali mbooloom ñi gëm te di leen dooleel mbooloom ñi gëm dañoo mujj law ndax nit ñu bari fekk si nañu leen ci gëm ne yeesu mooy musalkat bi juróom ñett ci seen xalaat lan la nit ki war a xam bala mu nangu yéesu ni musalkatam bala nit ki di nangu yéesu war na jëkk xam kan mooy yéesu xëy na yeesu duñu feeñu ni mu feeñoo sool waaye yàlla dinañu won ne yéesu mooy doomam bu nu loolu dale war nañu jébbalu ci moom mi sunu boroom di sunu musalkat kenn mënul doon taalibe yéesu te xamuloo kan mooy yeesu ba jébbalu ci moom fii lañuy yemale nettali bi